asalaamaaleykum mbokk yi teel dibéer ñaar fukki fan juróom ci ramadaan muy weeru koor ci atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëpp fukki fan ak juróom benn ci weeru avril ci atum ñaari junni ak ñaar ñett fukki fan juróom bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet na kon tey ci dibéer ji rafet na li ñu ciy teel rek wattandiku mooy ku ca watu wala ku ca tàggoo ñaanu bis bi yow yàlla ab jéggalekat nga te bëgg ak jéggale yàlla na nga allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni xadiisu bis bi jëleef na ci abdullahi ibnu omar yàlla na yàlla gërëm leen mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam daan na li'tikaaf ci fukki fan yi mujj ci koor gi li'tikaaf mooy ak jaamu yàlla goo xam ne nit ki day taxoog jàkka ja te yéene ci jegeñ lu boromam loolu mooy lentikaaf xam naa ko dem ci waroom xam-xam yi ak téere yi dana na ko gën a leerlal xadis bi dëppoo nañu ci an abdullahi ibni omar radiallahu anhuma qaal kaana rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yactakifu al asra waxtu bi lii suba waxtu na dana tàbbi cinq heures trente-huit juróomi waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom ñett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 jant bi dana fenk 6 heures 53 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñett di so 19 heures 19 juróom ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom ñeent waxtu jàpp wi muy waxtu wi ñuy bàyyi xëdd 5 heures juróom juróomi waxtu yu tegal fanweeri simili waxtu dog wi 19 heures 23 juróom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin